بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو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 أنثاري مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنثاري مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا هل منك يا الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر لساني وجناني سفي امام سبرا السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla suñu borom bàyyi ñu mu yàgg fi lool te wér ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu mbooloo mi di association développement Touba Ndiarème lépp lu manque ci kàddu yëpp ñu jéggal ñu ko te xam suñu matadi la lépp lu ci jub ñu ngi koy sant yàlla suñu borom ba seenee dimbandikoo kàttanam ak dimbalam ñu ngi nuyu képp kuy dégg suñu kàddu di la tàllal loxo di sa doole ci ah, sa alal ak ci sam xel ak ci xam-xam di sant bu baax a baax mbooloo mi ngir laxasaay goo xam ne am nañ ko ba seen ci liggéey Serigne Touba ñu ngi nuyu góor ñu nuyu jigéen di nuyu mag di nuyu ndaw képp goo xam ne ñëwut amoon na yéene ñoo xam ne ay yitteem ko dënk waaye ñu ngi ñaan yi ci am ñu bokkoon mboolem jullit ñi ngi gën a tàllalaat loxo comme ni ko Serigne seex waxe àdduna bi yëpp. képp koo ñu ku ñu fas yéenee dimbale ci seet seetal suñ seex li ma toon a wax lépp wax na ko moom it dañ koy ñaanal rek ndaxte ak sëriñ daara la boo xam ne daanaka gox bi xale yu ëpp rek moom moo leen di teete ci xasida ak alxuraan kon ñu ngi koy ñaanal yàlla taxawaay gën a yàgg moom it fas nañ yéene ànd ak moom liggéey ak fépp fu daara nekk association bi fas na yéene ànd ak yow ndax association bi kat liggéeykat Serigne Touba rek lañ ñu ngi tàmbali woon 2007 le 27 janvier kon moom lañ tàmbali woon seenub liggéey waaye boobu ba léegi gis nañ ci tawféexi sëriñ bi xañ na seenu fukki dërëm ak seeni juróom la ñuy dajale di wut ay peel di wut ay bale di wut ay rado waaye loolu lépp ñu ngi ci gis tawféex ak ndimbal ndaxte ñoom kat seen alal ak seenum xel. ak seen doole wax dëgg def nañ ko ci liggéey bi di tàllalaat loxo képp koo xamante ne bii dégg nga suñ kàddu te fas yéenee liggéeyal Serigne Touba ñu ngi lay tàllal loxo ci sa xam-xam ñu ngi lay tàllal loxo sa doole ñu ngi lay tàllal loxo sam xel. Ah, ñun nag ay ndaw lañ yoo xam ne fas nañ yéenee gën a lokka yokkaat suñ pësteef dañ fas yéenee gën a dëgëral suñu laxasaay xam ne liggéeyal Serigne Touba rek moo fi nekk te moom rek lañ fas yéenee def. képp ku ñu gisit ñuy def lu wuuteeg lool nga jàpp na suñu di rekk la waaye suñu bëgg-bëgg moom mooy fas yéenee liggéeyal Serigne Touba mooy la sëriñ Moussa Ka doon wax naan moo mënul lëf waaye bëgg a baax rek moo tax ñu bawoo ñun ñëpp kër ndaye ki bàyyi dikk fekk si la lu bon taxut kenn jóg kuy dox di jëf lu bon seytaane mbër ma da koo man waaye jubluwoo ko kon ci biir mbooloo mi képp koo xam ne gis na kenn di dox lu di def lu dul noonu na xam ne loolu rek moo ñu tënk muy matadi doomu aadama waaw ñun suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg mooy fas yéene takku liggéeyal Serigne Touba di ci tàllal ñëpp loxo ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ndax mënuñ fee wax lu gën a kawe kàddu yi sëñ Cheikh mii mënuñ fee wax lu ko mu gën a mat daanaka dañoo ñëw rek sukkandiku ciy kàddoom di si jokk suñuy kàdd waaye li ma toon na wax yëpp rek wax na ko ñu ngi gërëm it Serigne Ibrahima mii nga xam ne moom bokk na ci équipe Baol Média di ko sant bu baax a baax ak ñi mu liggéey bi lépp lu mu gis si koñ bi muy lu dul noonu dana ci taxaw bu baax a baax ak équipe bi mu àndal yëpp kon sant nañ leen gërëm leen li ngeen bëgg ci liggéey bi nag yéen a ko xam yàlla na leen sëriñ Tuubaa yëkkatil boppam dañ gën a dimbandikoo sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi rekk moo fi nekk lépp lu waaye bëgg àdduna ak àllaaxira hmm. bu ko sàkkoo ni mu ko war a sàkkoo dina ko am ñi ngi ñaanal bu baax seex Cheikh Mouhamadul Mountakha di gën a di gën a sukkandiku ci moom di ko gën a bàyyi xel ci lépp loo xam ne mi ngi koy digle ak di tere di ko ñaanal bu baax a baax mu yàgg fi tawét ak mbooleem ko ànd ak moom liggéey bi yàlla na ko yàlla defal ci barkeb Seexul Xadiim sant nañ ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfeex ak xéewal yu kawe njortoom ci barkeb xasida yi yàlla ñëpp am jàmm ci barkeb Seexul Xadiim ñu ngi jégg lu baax ci matadi geeg ñàkk mën a wax geeg ñàkk xam waxen gi waaye lépp rek ndigal la loo xam ne mënoon te ñàkk ndax ñoom ñoo jël kàddu gi teg ko suñu loxo te mënuñ ko gàntal yàlla na Sëriñ Tuubaa mootal li ci matt te ñun ñëpp ñu ànd daje seeg gërëmul Sëriñ Tuubaa